Assalamu alaikum sama gars bienvenue sur CTGHT Vous faites que c'est ma dernière vidéo je vais voir ci Bluetooth 5.0 Vous n'a Bluetooth 5.0 vous na le lu pour envoyer une vidéo ce lañuy wowe wifi direct parce que pour wax leen deug ak bluetooth 5.0 lu connecter appareil du ma pour utiliser bu photos, des vidéos ay photo ay vidéo wala sax ay application parce que ak wifi direct moom moo gën a gaaw lu ma wifi direct au lieu de bluetooth 5.0 parce que wifi direct fi direct est et itam puissant parce que vous le bluetooth 5.0 vous mi ngi 4 mégabits par seconde mais avec Wi-Fi direct je mi 250 mégabits par seconde bu la connexion c'est parfaite mais pour wan le Wi-Fi direct même si vous ni un appareil connecté à lu 140 mètres ba Wi-Fi direct Wifi Wi-Fi direct mi un portable Android le portable Samsung portable Huawei portable Techno, et portable iPhone Wi-Fi direct amul si ben portable iPhone légui bala ma len di expliquer nan ngeen di kay activer ak nan ngeen kay utiliser dama len di fàttalil ngeen abonné wu sama chaîne mais itam ngeen beusi cloche bi pour di jot notification bu ma dugalee vidéo bu bess légui yow bo beugé envoyer kenn ben application ben dossier wala lu mu mënti doon ak Wifi direct lenn ngay def da ngay activer sa Wifi soxlawul ngay connecté wu si benn Wifi lenn rek ngay def da ngay dem si paramètre Wifi nga dugg fi ñu bind Wifi direct de lay indil page bu melni même portable bi ngay envoyer dafa war a nekk si même page moy page wifi direct bi parce que bo duggee di nga gis portable bi ngay envoyer bu fekkee mi ngi ci même page bi da nga kay gis pour mën ka envoyer li bëgg envoyer ak wifi direct mën nga envoyer ay vidéo yu 10 ay vidéo manam mën nga envoyer ay film ay série même lu mu 10 diis parce que fi dama len di won légui damay envoyer 6 films lay envoyer ndoo en même temps légui vais sélectionner mon film Je vais vais sélectionner sélectionné pour ñaata giga je damay faire détails vidéo bi 4,67 giga 4,67 envoyé en moins de 1 minute 30 secondes pour le je vais partager Je dugg wifi direct Je vais lay Je da ngay dem portable wifi direct pour léegi nag boo ko gisee da sélectionner. ensuite les benen portable d'aller envoyer notification léegi nga bës si accepté comme kuy envoyé bluetooth mais c'est juste que moo ko trop comme li ma leen doon wax bluetooth 4 mégabits alors que wifi direct c'est 150 mégabits léegi dama kay accéléré te gis ngeen li ni yépp 4 giga la envoyé sur le presque 5 giga ah envoyé sur le tolloog une minute 34 secondes exactement et lol non mën nga ko def un dossier mën nga envoyer dossier manam euh, ben album nga jël ko envoyé ko wala ben série nga jël dossier bi envoyé ko directement bo sélectionné dossier bi bo partager partage lay paramètre direct ensuite légui nga la même chose rek da ngay partager sélectionner envoyer. partager sélectionner envoyer. comme on un dossier comme on donne ay vidéo wala mu application même chose ngay def da ngay partager nga sélectionner ensuite léegi envoyer. yaakaar ni vidéo bi neex na la yaakaar ni fonctionnalité bi dina la jàppale ba bu benn yoon nga mën envoyer ay photo ay vidéo même ay dossier si lu mu gëna a gaaw ma di fàttalil ngeen abonné wu si sama chaîne YouTube mais itam sama compte Instagram lépp si turu CTG HT ma di jox dig daje si yeneen vidéo incha peace.